test test micro test c'est waaw salaamaaleykum mbooloo mi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay defe naa ne ku xool samay interview barki démb gis nga li ma wax ki amu xolu jël këram wàcce fa kaamil njëkk a génn def vidéo dama koy waxaat direct kooku moo yooyu ministre de la culture samay wax la te li may wax am naa ci sañ-sañ avant benn artiste senegal di génn di def vidéo la diva Coumba Gawlo Seck moo génn def vidéo wax ci ba pare tiim wàcce kaamil di ko mettitlu bala ñu ko jox kaddu dañ leen xamal ne ànd naag ay musiciens am ànd naag ay sërëm yu mu bokkal ndey bay baay waaye ànd ak yaayam ju baax ji nga xam ne ci lu baax rek lay dox jërëjëf yaay yal na la yàlla bàyyi sunu kanam moom moo gën a am lu ko metti su doon leneen luy indi Aziz ci dox la ak wax la ak jëf ak def teraanga moo ko indi kon noo ngi la koy jàlle ñu nit waa Pikine di ñaan yàlla sunu yaay am xolu muñ ñu déglu président Kumba la divan mu sànni ci ay kàddu nee na ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi mu tedd mi nee ñu ngi nuyu mbooloo mi ñu fu fekk ñëpp nuyu mbokk yi nuyu dëkkandoo nuyu xarit yi nuyu am di jàmm nee na ñëw tey bi nag nee na ñëw boo xam ne yoon la waaye gënalun de nee na bu nu sañoon bu nuy ñëw fii dañuy ñëwee ci beneen anam bu dul bii nee na mën na am yàlla moom ñëw fii tayam ak ay mbokkam ak ni ma ko waxee ñu ay musicien ak ay fansam fans club yëpp ñëw nañu ak musiciens yi nee na mi ñëw nañu nee na yàlla nii la ko bëggee nee na ñëw bi nag nee na ñëw bi yoon la nee na musiciens yi nee na estafama mi ñëw nañu nee na yàlla nii la ko bëgge nee na ñëw bi nag nee na ñëw bi yoon la nee na li mu naan moom amoo kooko jaale nee na dafa waroon toog ñu koy jaale ndax Aziz Azizu boppam la nee na Aziz doomam la rakkam la xaritam la nee na doomam la ndax bu sañoon jur ko ndax ci mbaaxam nee na ak kàddoom nee na suñu masaana waxtaan nee na su waxee sax nee na moom liggéeyam xam nga lépp daanaka personalité la ak dignité ak def lu baax nee na ak exigence bi nee na su defee dara léeg-léeg mu me ah ne ko Aziz li mooy danaan day kontaan nee na daal di sukk na ko yaay bul mer loo bëgg rek dinaa ko def daal di fecc nee na su ko defee mu daal di retaan mu ànd moom ci ngor nee na ci saasi nee na ci saasi day daal di am kersa ndax bu Aziz ci saasi day fecc bégal ko ne ko yaay sama yaay mu am kersa ci saasi nee na mu daal di rus ci saasi nee comportement bobu nee bi nga xamne mom la Aziz am nee mom musul gis Aziz fumu mere nee musul gis Aziz fumu xulowe xuloowe musul gis Aziz fumu gedde fumu ko degge mu am ak kenn ben xarma yàlla foko fek rek day wax wax ju rafet day wax wax ju bax day fadeere nee na su ñëwé sax leg leg ñu répéter leg leg ñu répéter mu ni ko Aziz xam nga man mënumaa fecc mu ni ko bàyyi ma rek may way mu ni ko déedéet kaay jéem rek mama nee na bu ko defee day jël temps liggéey bi niñ koy defee mu jël temps bu baax nee na kon mën na ne tay ki nga xam ne moom la ñu ñàkk ku am valeur la ñu ñàkk ku am valeur ci adduna ku am talent koo xamante ni nii valeur ak talent mo meuna dina jariñ ay génération yu bari loolu la len waron mën waye sunu borom nak teewul ni nee na terewut nit ñi nee Aziz xeyna yagu fi waye talam valeurum ak xam-xamam jot na jariñ ay ay xale yu bare mo meuna dina jariñ ay génération yu bari loolu loolu la leen waroon mën a waaye sunu borom nag teewul ni nee na terewut nit ñi nee na Aziz xëy na yàggu fi waaye talaam valeur am ak xam-xamam jot na jariñ ay ay xale yu baree bari nee na boo dee xool xale yu bari Aziz moo leen di formé moo leen di encadré nee na lu muy def danaan ko Aziz dañuy tourner de. lii mooy profil bi. nee na ko mosu koo wax du mu dugg ci lii wala leen danaan ko lii rek laa soxla moom moo koy lijjanti ñëw indil ko ko te bu leen indee bu ñu feccee ku ci ëpp talent rek sa morom muy loolu te loolu lépp Aziza ko doon def moom mi leen jàngal moo leen ëpp talent ndax na moom nag moo leen jox pas de moo leen di wax ni ñuy def moo leen di wax fi ñuy taxawee te da koy def ak xol li ñu gën a metti bi ñu duggee fii suñu xol tooy dafa bari nee na danoo gis sunu yaay gis muy mag ak doo xam doom ni mu neexee ci xol xam ni moom dafa toog rek waaye nekkatul rawatina bi mu dee mag teg ci sunu xol sori nee na kilim kilibam bu bees bii bi war a génn nee na Aziz moo def casting bi tànn ñëpp image yaa ngeeg ñun ba léegi bu ñuy filmer casting bi daal di garder lépp nee bis bu nekk bu xëyee woo Yacine kenn ci collaborateur mi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy gérer affaire artistes yeeg lépp ni ko Yacine ne ko kañ ngay tourner clip bi man de Yacine xaw ma woon ni léegi danga maa contre doo gaaw ci clip bi mu ni ko ñu ngi ci dañuy am ay réglage yu ndaw yu ni def mu ni ko damay woo sama yaay samay woo sama mama mu ni ko yow sama noon nga yaasin daa di kaf reetaan na bu yàlla defee Aziz mi def casting bi préparé chorégraphie nekk ca répétition yi nee na ba moom mii mu koy diriger ci yenn naan ko defal nii ñu war a tourner clip bi Aziz nekku fi fekkewu ko jotu cee nekk nee na sunu borom noonu la ko dogale noonu la ko bindee. noonu ko dogale noonu la ko bindee. sunu borom a ni woon fu mu toll dina teg ci sama kanam ay yeneen activité yoo xam ni dina gàllankoor ba du ma tourné bi nee na bëgguloon Aziz fekke ko ni ko Aziz bëggee na Aziz wut ñooñu la bëggoon ñu fekke ko waaye moom mi nga xam ni moo wut ñooñu suñu borom bëggul woon mu fekke ko bëggul woon mu nekk ne kon ba moo la tox ba muy yeex nee na ba léeg-léeg mu naan lii lay yeex na boobu sunu borom lii la na moom nee na loolu bokk na ci li tax suñu xol tooy ba bërki démb nee na yàlla seede na ne am na fi image yi bi ñu paree mixage bi nga xam ne dañ ko doon def ci musique bi mu teg ko woo yaayam na ko ñëpp déglu nañ ba pare yow kaay déglu nee na bi mu ko tegee mu déglu ba way bi jeex dafa jooy rek kott ko daal di jooy jooy yu metti mu ne xam ne la plupart di ngeen ko gis mu ne ko waa léegi looy jooy mu ne macha allah li may jooy yàlla na yàlla lafal la cat teg ci Aziz Dabala nee na bi mu déggee way wi ci saasi dafa mel ne Aziza taxaw sama kanam daa wax ay waxam jooy kon loolu yëpp nag mooy li nga xam ne mooy la suñu borom dogal ñuy xamal sunu yaay daal ñun merewuñu Aziz benn yoon jéppiwuñ ko benn yoon nit ki di nga ànd moom nga jéppi ko nga ànd ak moom mere ko terewul ngay ànd ak moom danga naan natt bu ma yàlla booleel rek la waaye doo ko tegu doo ko jox cër te doo ko teg place waaye Aziz bokkul ci ñi ma tegul place Aziz bokk na ci ñi nga xam ne fu ma ànd ak moom du ma rus mukk du ma rus fu ma ànd ak moom mukk du fa defuk mbaadoo la du fa def ñàkk fayda du fa def luñ koy yabe du ko defee luñ koy yedde fu nu mës a ànd na ni moom ak Moussa Diop ci groupe bam la nekk ak Tange Tandian ñooy laaj fu penk ba ne waxtu du leen raw fu Aziz nee na fu mu toll day laaj moog mook Tanzania ak musa ñuy xool fan la penku bi nekk pour ñu mën a julli ndax waxtu du ko raw loolu léew loolu ñoo ko gis man fu Aziz nee na fu mu tollu day laaj mook Tanzania ak Moussa ñuy xool fan la penku bi nekk pour ñu mën a julli ndax waxtu du ko raw loolu léew loolu ñoo ko gis mën nañ ko seede

naan fii laay mujjee kon kooku yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmel ñun merewuñ ko nee na gëm na ni Sénégal macha allah kenn merewu ko di xamal ne sunu yaay ni naqar bi nee na dafa jur Aziz rek moo tax moo xëy na moo xam li nekk ci bu mu xolom waaye nee na mënu gënu mënu koo métti lu ba gën koo métti la Sénégalais yi ñi xam Aziz ak ñi xamul Aziz daan ko gis ci télé bi. ñoom ñëpp seen xol dafa tooy ndax moom Kumba mii nee na fu ne lañ ko woo la diva nee na ba ci Mali ba France ba Bernard Libo chorégraphe bi nga xamante ni mooy sit di nañ waroon def sur scène moo ñëw di liggéey ak Aziz nee na daf ko woo ki doon liggéey ak Aziz ne ko ñun ñëpp suñu xol tooy na ndax Aziz nit ku baax la kon loolu lépp nag moo waral ñu ñëw tey sunu kër ñun amuñu kuñ ko jaale fii sunu kër la bu loolu wéyee ginnaaw Aziz nee na beneen bi tax mu ñëw mbokk gu yàggu te dëkk ndax Modou Ba mii Modou Ba Gawla dafay fàtte ne sax day fàtte ne léeg-léeg bala sant ndax turam wi siiw ba àdduna xam ko mooy Modou Ba Gawla koo wax mu ne Modou Ba Gawla ndax mbëggeel bi ma bëgg ba jël turam taftal ko sa sama tur nee na mën na ne Modou Ba la njëkk a xam Aziz te Modou Ba mi musu koo doxe musu koo waxe musuma woo di wut intervention musuma woo wax ci len Aziz musu la ñëw parce que dafa yomb duñ ko ba noonu nee na looloo waral nee na loolu rek la war a def mu génn def vidéo bu am solo léegi nag nee na lépp mënu koo wax xol yi li ci ne bari na yéene yi bari na cofeer gi bari na naxar gi metti na nee na yaay ñun daal dama ànd sama yaay moo moom yaayu Aziz la ndax moo jur Aziz ndax dafa bëgg Aziz ndax ci xolam la ko def ak rakkam nday faatu nee na ñi ma àndal ñëpp ay rakkam lañ nee na ñii samay doom lañ nee na ay musiciens am samay staff ñii samay doom lañ nee na ñu ci bari ay jeunes lañ ñenn ñi mu jur leen nee na bu soboon jur leen téel leen ma lii ànd ak musiciens yi ànd ñenn ci fan ci club bi ñëw seet si jaale si la nee di leen gërëm yenn journalistes yi nee na bi muy ñëw it yàlla seede nee na danoo ñëw nànk ci bañ kenn yëg leen nee na wax ma wax ma fi li ci nekk ci ay journaliste dana ko loolu da doy na waar mu ne dama dañoo xër ci Aziz te xër ci yow ba tax na lépp loo xam ne ci Aziz la jëm ñoom ñëpp dañuy déplacé wu rawa rawatina bu dee yaa jur yaa jug di joxe sa kàddu ndax fi nga toll ci Aziz nee na ñu ngi leen di gërëm. ñëpp gis nañ seen seen taxawaay nee na lekku leen naanu leen nelawu leen ndax lu rafet rek moo tax nee na lu rafet li ngeen wéy di ko ci wax ñu ne ñaan yéen journaliste yi ngeen wéy di ko ci wax nee na Aziz kenn amul ci moom loo wax ci moom lu rafet lu ñu xam ci moom lu baax li ñu xam ci moom te communication média nee na rawatina média bu ne ci internet day dem ba faw te fu ne lay dem ci àdduna kon média boobu nag na fexe di wax loo xam ni lu rafet rawatina nit koo xame nekkatul ci àdduna nee na ñu bàyyi loolu xel bu baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen massaw bu baax jërëjëf yaay Fadal du ñàkk nga sànnul suñu yaay ay kàddu.